donc dañu war a alphabétiser waaye mënuñu def rek comme ni ñu ko doon defee avant léegi am nañ le numérique moo xam ne lu bees la dina tax ñu gën a alphabétiser ñu bëri et également nañu seet ñun dañu dem foo xam ne ñoom ñoo gën a soxla alphabétisation su dee ñu ngi seen atelier yi ñu ñëw gis le maître artisan gis l'apprenti former ko si langam boo xam ne moom la ko xam pour que moom mu mun a am métier yi et également dans le quartier su dee am nañu ay place ñu mun leen former si biir donc ñun ñoo war a nekk offensif ñu bañ a toog rek di wax ne ñu ngi xaar ba école tëj ou bien ba ñu am benn classe soo ko def donc partout foo xam ne sénégalais yi ñu ngi foofu toog donc war nañu jóg ñun ak suñu partenaire yi UNESCO am ñeneen ak société civile ñun ñëpp ñu dem di jàngale tout le temps pour que nit ñi mun utiliser Sénégal et surtout que nag fii si Sénégal codifié nañu ay langues yu bëri par décret donc loolu am na ba pare également ñu ngi installé fii si Sénégal mooy li ñuy wax ne classe numérique di wax ne daal que pour que ñu mën a jàng tout au long de la vie laaj na ku ñu utiliser suñu langue yi pour que ñu mën a former suñu xale et puis également ñu gën a xam ci li ñuy wax ne pédagogie gis nañ si adduna bi koo xam ne arab ngay jàng wala français wala espagnol soo demee si sa biir école sa langue ngay utiliser ñun aussi si biir Sénégal commencé nañu utiliser suñu langue yi mooy séeréer mooy pulaar mooy wolof si ñetti année yu njëkk yi si biir école donc ñu wax ne rek alphabétisation bi solution la solution la pour ñun et surtout nag avec ce monde boo xam ne léegi numérique la ñu mën a utiliser suñu smartphone yi suñu ordinateurs yi jàngale également suñu langue yi fàttewuñu également li ñuy wax braille donc xam nga ne braille également ñu ngi koy utiliser donc di wax ne daal société bi yëpp la direction de l'alphabétisation un job pour que partout où il y a des ay nit yoo xam ne dañu soxla ministère bi ñu jóg un partenaire partenaires parce que le fait que nous ñuy jël décision que c'est une école première année moi, CI CP C1 da ngay utiliser pulaar comme yeneen yi koy comme français yi ñoom si seen langue espagnol aussi ñu koy utiliser comme commencé nañu def également ànd ak collectivité territoriale c'est rare que les ñëw si commune de fekk amul calas également utiliser numérique donc nañu wax ne taux ko surtout que xale yi di def apprentissage suñu artisan koo xam ne yaa ngi jàngale sa métier donc nga mun ko jàngale ak salarié ñu defal la ay livre nga am sa livre xam métier bi noonu la te loolu suñu aful woon ab favorisation du ñu mën a en tout cas transmettre connaissance yooyu donc di wax ne bari nañu waaye en tout cas dynamisme bi ñu jël ak suñu partenaires yi ak ñun ñëpp xam naa dinañu fexe ba baissé ñu alphabet fii si Sénégal en tout cas loolu mooy ambition présidentielle